bismillahi rahmaani rahim wa bihi nastain wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yu yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak yéen tey jii di bisub alxamis dëppoo ak vingt cinq ci weeru mars deux mille vingt fii ci biir jumaay Touba ñu fekk si fi ay kilifa jullee fi tàkkusaan ci bis bi ñu wax euh, fekk fi al imam sëriñ Afia Bousso ak am nañu ci gën a yey te mooy ña ko jàngi woon ñoo ñoo ko jàngi woon nag ñoo lëkkaloo gis ni lépp lu aj gi war a ëmb la ca war a gën a fés mooy wàllu yàlla wi mooy ujaaj bi daal buy départ ci njabootam ci Sénégal mu yëg ni juróomeelu ponk islaam lay doxi waaye bu demee ba ca barab yu sell ya mu yëg ni noppalu def siwul tourisme waaye dafa ñëw ngir joxe ab jaamu yàlla boo xam ni lu ci manqué rek amaan na ak ajam mën naa xajam kon ñooñee gis ni kon seen taxawaay wëratu la ci seen bopp la ca war a njëkk mooy ñi nga xam ni ñooy seeni kilifa di xalif généraux yi nekk ci réew mi waruñoo ko déggandéem ndéem wala ñu koy dégg rekk ci télé mbaa ci rajo dañoo war a waaxu ba ci seen jëmm yu tedd yi sukk fa ñoom yëgal leen ko tàggu leen ci ñaan leen ci ay ñaan sàkku ca ndigal loole waral na ñu dem ci ay barab ba loolu nu indi fii ci dëkk bu sell bi tey di Touba bi mu amee nag bi ñu yegsee ni ma ko waxee léegi fekk nañ fi ñoo xam ni ñook ñoo ma bokk waar wi bokke ko Sénégal bokke ko makkatal mu karam bokke ko na munawara bokke ko ci barab ya ñuy aje makka yépp ba war a dellusiwaat Sénégal mbooloo moomee nag ngir ma jox kàddu gi ki ko jiite eh, ay doomi soxna ñoo ca ne xanaa kay ma tudd tur yi ñi nga xam ne ñoo fi teew tey rek ñu yóbbaale ñi nga xam ne ñoom ñépp ba ñu yégee ni ci barab bu selli bi lañu jëm si kenn ku ne bëggoon ngaa taal sa oto ànd ak sa équipe ak sa waa bureau ñëw ngir profito ziar si ci barab yu tedd yi ki jiite mbooloo mi moo di El Hadji Idrissa Gaye bu sunu wayjur imam xalifa Gaye bu Thiès ku ne xam taxawaayam ci diine ji moo nekk nii farema nii ci sama gannaaw moom moo jiite mbooloo mi ci section nationale bi waaye ki nga xam ne moom moo topp ci moom di El Hadji Mouhamadou Mansour Mbaye tey jii mu am feneen fu mu demal COSAPO nu teewal ko fii moom itam teewul naam ci jëmm waaye xelam ak xalaatam yëpp mi ngi fi ndax mi ngi nuy gunge ci jataay bi ki nu toftal ci moom mooy imaam Serigne Babacar Niang mi nga xam ne moom itam ay taxawaayam ci diine ji ak wàllu aj màkka gi Sénégal gi xam nañu ko ki nga xam ni moo di secretaire général bi mooy Serigne Mouhamadou Abdoul Fattah Sall bu Serigne Abbas Sall bu Louga mi ngi nii toog ci sama gannaaw moom itam ci mbooloo mi la bokk jiite li nga xam ne moo di wàllu euh, Sénégal gi yëpp ci wàllu secrétariat général ki ñu toftal ci moom di imam euh, Souleymane euh, Ngom moom it macha allah mi ngi nii ci mbooloo mi di ko xam ne tam ay taxawaayam ci diine jeeg aj gi umpatul kenn mbokk yi nag ku wax aj màkka wax ni na ca diine ja gën a fés ba tax na COSAPO bi mu yëkkatee ay commission am commission ba mu ca njëkk a tàllal te bokk ca ya mu gën a fullaal moo di commission bi yore wàllu diine ji ñu koy tudde commission religieuse ki ñu ko jox mooy imam Abdoul Aziz mbay mi ngi nii ci jataay bi moom itam di ci def liggéey bu am am solo ñi ko cay gunge ñëpp nag te ànd ak ñun jataay bi kenn ca ñoom moo di imam Serigne Mouhsine Diop nekk ni dend ak eh, imam eh, Serigne Afia Bousso sunu kilifa waaye yore itam wàllu trésorerie bi ndax ku wax aj màkka waxu xaalis ndax moo ca yóbbu nit ñi mu cay liggéey liggéey bu rafet ànd ceeg soxna su tedd soo xam ne moom it liggéeyam ci aj màkk ku ne xam na ko muy ajaa maram géey maram Touré moom it ànd naag nun mbooloo mi waaye nii jataay bi tëddee tax na du nu mën a fekk si fii ah, bokk na ci ñi ñu àndal ci mbooloo mi tey mooy ku yor wàllum communication bi di imam Cheikh Abdallah Guèye bu 2STV moom itam ñu xam ko ci taxawaayu diine ji moo yor li nga xam ni moom mooy eh, communication bi imam Alioune Sy moom itam mi ngi ci mbooloo mi bokk ci commission religieuse di liggéey liggéey bu rafet moom itam ci diine ji ñëw na ànd ak noon tey ji mbooloo mi yaakaar naa bu dee waaw kay Serigne euh, Bachir Dia mu sunu wayjur Cheikh abu ja ca Thiès di boroomi taxawaay ci diine ji moom itam mi ngi nii euh, bokk ci administration bi waaye Serigne Abdoul Baaxe Gaye moom it bokk ci commission organisation ak logistique moom itam mi ngi ci jataay bi sunu kilifa sunu woyjur di El Hadji Samba Diaw noonu ñu koy wooye jëwrin mu ngi nii bokk ci COSAPO yi bokk ci commission des sages muy mag ñu nuy xelal ndax noonu njëkk ci waar wi njëkk ñu ci tool bi dàq nu cee bay kon buñ jógee di ànd nag ñoom soxla na leen nu gungenu moo tax bàyyi ne lépp tey mi ngi nii ci sunu ginnaaw ànd ak noonu yaakaar naa bu dee fàttewuma kenn koo xam ne waroon naa laa tudd Serigne Cheikh Samb moom itam mi ngi nii limuy muy xate-xate eh, ndax borom yitte la mi ngi nii dab si nanu nu ànd ak moom eh, jataay bi ak kan Serigne Assane Diop waaw kay moom itam ma di ko wooyee Assane Diop Madinatul Munawara ndax it borom yi taxawaay la moom it mi ngi nii macha allah ànd ak noonu eh, jataay bi nu fekk si nag sunuy doomu ndey sunuy frère sunuy mbokk ñu bokk lépp bokk diine ji bokk taxawaayu makka yi muy waa COSAPO cellule bu Touba Serigne Moulay Seck di sunu kilifa ci biir ak ci bitti jiite ko waaye nangu njiit gi ci ndigal ndax sunu kilifa yi netti nañ ko keroog ba mu ne toq noppam dañu bala ma cee def dara maak ñi ma ko àndal ni ko sëriñ Maxtaar waxe dañuy dem ba sunu kilifa tàggu ko ñaan ko ndigal bu nee waaw dana doon waaw bu nee déet du ngeen nu fa séen la ca topp mooy kilifa gi nee na waaw tey yàkkamti ne leen a gis loolu moo waral kon sunu ñëw tey kon daal imaam ñi ngi wàcce waat suñ kàddu ànd ak di tuub bu baax a baax ci yëkkati gi ñu ko yëkkati seen kanam ndax kilifaak yi mu làmboo yépp ci wàllu martaba di yëkkati genn kàddu ci wetam yellul waaye xamale la ak mbooloo mi rek moo tax nu def ko ñi ngi ànd àndaat di jéggalu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di jox kàddu gi président a Gueye mu gën la xamale ak mbooloo mi wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu imaam ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel itam ci cër bii di ko yëkkati ñag ci turu ko saapo bi alxaaji yu nga présenté léegi nuyoo boobu ñu teg ci sa loxo ñu jëmbale ko ci xalifa bi di cheikh Mouhamadul Muntaqa Mouhamadul Bachir di ñaan yàlla yàlla dolli guddal fanam naalam yépp yàlla na ko àggaleeg sago mbooloo mi fi ñëw li muy dox si dëkk bi mu tàbbi looloo fi ne ndax aj màkka dafay ponk ci ponk diine di juróomeelu ponk ñun ñi nga xam ni ñoo ci nekk damay wax ni ku ca amul woon agence amoo kota bu aj màkk jotee di nga wax ci aj ndax yëfu diine la ñu dem ba gis ni nit ñi dañu defe ni njëriñu àdduna li mooy aj te nu gis njëriñ li nekk ci aj ndax xajjul mabruur laysa lahu jaza illa al na kooku bu ñu demee ba di ko jaawaleeg poño àdduna réer du réer tàbbi na ci sunu biir ñun ñii nag ñu ni nañu jóg ndax lu man ñaar fukki at ñu ngi ci aj mag am ñu am lu ëpp loolu ñu ni ñoo ngi gis aj gi ni muy doxe naam alhamdulilah baax na waaye war naa gën a baax yóbbal gan ngay def tazawadu booy aji fa inna xayra zaadi taqwa ñu gis ni nag kon war nañoo jóg fexe ba aj màkka gi saf sàpp ak yàlla ndax wax naa ni deux mille demuñu màkk am na ñu bëree ngi jooy ndax chiffre d'affaires yi lii laa daan gagné million yi laa perte lii laa perte waaye ñun COSAPO bi ñu degee dañu ni ñun li ñuy jooy mooy deux mille vingt tooguñu ci rawdu Seydina Muhammad ñu ni deux mille vingt defuñu tawaaful ifaada ñu ni deux mille vingt yow mu tarwiya demuñu munaa ñu ni deux mille vingt yow mu taasuwaa demuñu arafaat yendu fa ba jant bi sox di wax la ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lmulk wa lahu lhamdu yuxyi wa yumiit wa huwa ala kulli shayin qadir ñu ni deux mille vingt demuñu musdalifa deux mille vingt sànni wuñu jamratul aqaba deux mille vingt waruñu kaaba gi dafa ñu tawaaful ifaada yooyu ñu ñàkk deux mille vingt ñun COSAPO ñu yëg ni jullit yi loolu moo leen war a naqati waaye waruñoo jooy wàllu alal ñu gis ni bi aj amul COSAPO jóg ni nanu fàttali nit ñi ñu xam lañu ñu ñàkk te amuñu ko boo fakkastaloo ba daanu da xool la la fakkastal waaye doo seet fa nga daanu ñu xool li nga xam ni moo tax ba deux mille vingt demuñu Makka ñu ni lan la ñu ni mbas mi ñu ni waaw bu fekkee ni mbas mi lañu wax ni moo tax Arabie saoudite tëj ay buntam ni organisé wul aj Makka kon jaadu na ci ñun ñu jóg wax ak nit ñi lan la ñuy wax ak ñoom ñu xamal leen lii nga xam ni dañu wax ni moo tax ba demuñu nañu góor góorlu ba moytu ko nan lañu koy moytoo ñaan tuub saraxe moytandiku déglu digle kër ma ni leen nag lépp loo xam ne luy waral ñu di ko xeex la ngir ñaan yàlla bunt yi mën a ubbiku ma ni xalifa bi sëriñ Muntaqa Mouhamadul Bachir moo ci jiitu ñëpp te tomb tomb bu ma jël moo ca nekk ca kanam ndax bi mbas mi dooree moo njëkk a yëkkati deux cent millions joxe kenn deful loolu boole kook yamu ca boole yamu ca boole ca ñaan yamu ca boole ca soññee yamu ca boole ci digle kooku def na ko ba mu mat sëkk ñu ni nag kon COSAPO gannaaw lii am na te COSAPO li ñu bëgg mooy kiy jóg di aji màkk xam ni demul voyage de noces demul tourisme dafay jaamu ji sunu boroom dafay wuti sippi ji ay bàkkaar dafay sëfi ay tiyaaba loolu nag du ñu bàyyi ba nit ki dem màkk waaye bala muy dem lañu koy waajal mu xam ni bërëb ba mu jëm fala rafata wala fusuqa wala jidaala fi lxajj yooyu nag COSAPO jóg di wër di jàngal nit ñi bëgg balaa nitatee dem màkka xam lan mooy farataam xam lan mooy yàq ajam xam xam lan mooy li mu war moytu yooyu nag COSAPO jóg di ko dox ngir liggéey si liggéey boobu le mënuñoo mënuñu ko def mukk te ñëwuñu Tuuba mënu la nekk ndax li ñuy dox di ko wax lépp fekk nañu ko fii ci biir Touba bi nu jógee nag xalaat ko ñu ni olof li muy wax mën a waaxu xam yoon wee ko gën kosaapo am kilifa kilifa mooy lan suñu kilifa diine yi ndax li may wax ñi nekk ci biir COSAPO yëpp ku la ci def xam nga foo koy boolee ndax am na kilifa ku amul kilifa nag bu la defee foo jëm ku la ci defal xam nga foo koy sant ndax am na kilifa ndax ñoom sëriñ Moulay sekk mii Serigne Khadim Dia mii Serigne Mokhtar Seck mii fa tabaarakallaahu docteur Moustapha Dieng Mële Baye Alxaaji sàmba Diaw mii ak ñi mel na ñoom te ci biir COSAPO keroog ba ñu ne capp wax COSAPO imaam Alaaji Moulay Alaaji Mokhtar la njëkk a wax mooy bala ñuy mën a wax benn kàddu dañoo dem ci kilifa ga su nee waaw ñu ni waaw bu nee déet ñu ni déet ñu lenn lu ñu ci dogal bi ma toogee ak sëriñ Abdul Fattah mu sëriñ Abbas mii ma ne ko man dey sama xel gën na dalati ndax booy wax ak kilifa mu ne la mënu ma ne waaw mënu ma ne déet te dew ma ci sëriñ bi ba mu jox ma ndigal ma ne ko kooku soo ànd moom bu la defalee xam nga foo jëm bu la defee xam nga foo jëm ñu nekk nag ñoo xam ne imaam maa ngi lay seedeel seen taxawaay seen taxawaay laa tuaddu wala tuxsa sëriñ Moulay mii. maanaam li muy daj du xool atam du xool darajaam xoolul wërsëgam xoolul xam-xamam mi ngi taxaw ci biir nekk liñ naan sayyidul qawmi xaadimuhum nekk liggéeykatu mbooloo mi damay geesu xool Muhsin ni ko man daal mu laay dama ko yërëm naa ma ni ko noppaluwul toogul ngir bëgg rek ndam te loolu muy def fii noonu lay def ci biir Màkka xaadim jami ci diaspora bi noonu la ñu ànd di liggéey kon daal imaam ma jéggaluwaat wax ni daal mbooloo mi di ko sàppoo dara taxu koo jóg lu dul bëgg aj gi daal saf sàpp ak yàlla ñu ni jox kotaa xam ni mbir mi jaamu yàlla la ñiy yóbbu ujaa ji xam ni mbir mi jaamu yàlla la kiy verset ci xam ni dafay wuti yàlla ni ko alxaaji Sàmba Jaw di waxe boo nee saf sàpp ak yàlla mu ni sàpp sàpp sàpp ak yàlla moom noonu la koy waxe saa su ci ne kon loolu mooy li nga xam ni mooy liggéeyu COSAPO ñëw gin fi ñëw tey nag dem seeti daara yi yóbbu fa la ñu am ngir ñu jàng alquran ñaanal ñu ndax alquran kat bu nu ko wanee gannaaw fitna rek la ñu dëkk mm. wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama kon fa tabarakallahu xëy nañu ci ay daara ànd ko ñoom seriñ Moulay ak Serigne docteur Moustapha ñoon imam Mokhtar ak sëriñ xaadim ñoon alaaji sàmba ñu wër daara alquran yi fekk fi li nga xamee ni moom la Touba xam moom la tuubaa am moom la Touba gëm te mooy jàng ak jàngale nekkuk taalibe gu mat sëkk bi nu xëyee ci loolu fa tabaarakallaahu ñëw jullee ndoog yow topp ci sa gannaaw julli siyaar bërëb ju tedd bi sunu xol gën na dal sunu xol gën na féex di sàkku nag nga dolli ñaanal mbooloo mi dolli ñaanal ki nga xamee ni mooy suñu délégué général bi nga xam ni moom lañ ñu booleel muy professeur Abdoul Aziz Kébé ak ña ko yilif ndax moom moo ñu yilif moom nag moo xam ne ko yilif ña ko yilifit yàlla defal leen jàmm yàlla def jàmm ci réew mi jële fi mbas mi jële ko ci àdduna bi yépp ba bunt yi mën a ubbeeku màkk gii ñu dëtmal kenn mënagulaa wax ni dinañu dem wala duñu dem ndax organisation bi nekkul ci loxo président de la république nekkul ci loxo ministre de affaires étrangères nekkul ci loxo délégué général gannaaw borom bi subhanahu wa taala lépp ma nga aju ci Arabie saoudi ñoom ñooy xool ba ni mën nanoo organiser wax ak suñu waa réew suñu waa réew wax ak ñun wax ñu fa ngeen jëm de nii la ñu bëggee ñu defe ko kon yooyu yëpp dara mënuñu cee génne lu dul ñaan ak duaa u silahul mumin ñaan mooy gànnaayu jullit te ku ñëw fii ci Touba tàllal sa loxo sellal sa yéene incha allahu taala bu ñu la ñaanalee sa aajo mën na faju te ajo bi weesuwul yàlla teg teggi mbas mi defal ñu jàmm ba ñépp mën a delluwaat jooxe ji sunu juróomeelu ponk boobu ca dëkk bu tëdd boobu di baytilaal xaram kon imaam lu manqué ci kàddu yi ci mal la ñii day waxoon nañ ma lu gën a leer waxoon nañ ma lu gën a rafet waaye xanaa rek eh, ñàkk a xam nu ñuy waxee ci sa kanam ndax yaa ayyuha alladina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi waaye gannaaw ndigal la nag bu ñu ko defee jàmm rek ñu ciy fekk góor gi daf ñu daan wax ni ndigal ak ndigaale ak ndugal ndigal nag soo mënee defal boo mënul defal jàmm rek la ciy fekk dikk gii ñu dikk ci Touba ndigal képp la ndax wax naa ne ku bëri pexe ba dugg fi te amoo ndigal incha allah di nga fi génnaat kon nag ndigal képp moo ñu fi mën a dugal ñu sañ a dox ci dëkk bi fu ñu jëm ñu tatagal ñu bu dul woon ndigalu xalifa bi duñu ko fi am kon ndigal loolu képp moonu mën a jëriñ kon bu nu bëggee jëriñu nañu am kilifa képp kosaapoo nag ci kilifa kilifteef dong la ñuy dox amul lenn lu ñuy dox te duñu déglu kilifa yi lépp lu ñuy def ñoom lañ ci déglu fa ñu nekk ci màkka ga ci réew mi di dox ñoom la ñuy doxal lépp lu ñu gis lu jaaduwul ñu woo ñu bind ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla dolli jàmm ñu ngi lay jotul nuyoo kilifa yëpp di jéggaluwaat ñi nga xam ne ñooy àndandoo ci liggéey bi muy ministère de la santé bi ñu jógee ba tey ñu ngi lay seedeel le trois mars ba ñu lancé suñu programme te Ndakaaru Njaay ministre bi jóg na boole ñoo docteur Ndaw fa tabarakallahu ñu ànd ak ñun di ñu wéttali di ñu jàppale ci loo xam ni diine wax na ñun ñu ngi wax loo xam ne wàllu kër docteur la fas alu ahla dikri in kuntum laa taalamun ñu laaj leen ñu xelal ñu ñu bokk ànd defar ba lépp jag kon daal loolu laa ci doon wax si Abdoul Fattah ak mbokk yi ma yónni woon ngeen baal ñu ci kàddu yi colonel Badji la ñu booleel ñoo ànd ci liggéey bi ñu sant ko moom itam ci turu kilifa yi ba nu jógee ba tey ñun ak moom a ànd kon daal lii mooy suñuy kàddu maa ngi baaluwaat ak bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu baal ma rek ma nuyu sama doom bu baax bi ñu duggee léegi si Abdoul Fattah mi ngi ma naan ah mbir mi daal Pastef rek fi am ak organisation kon Serigne Cheikh danaan wax ni dëgg gu ñu organisé wul neen gu ñu organisé sax ko mën kon nag ku am dëgg nag organisé ko rek yàlla yàlla gën leen a jàppale wasalaamualeykum wa rahmatullah te di leen siyaara di leen dalal di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ne ñoo jiite mbooloo mii di Kosovo bu ñuy tuddee alxaaji Idrissa Gaye mi doon wax ak sëriñ Abdul Fattah Sall dana yóbbaale ñi ci seen ginnaaw di nuyu tamit sunu bokk yi tedd yi nga xam ne ñoo leen dalal fii ci Touba muy alxaaji Moulay Seck alxaaji Xaadim Dia docteur Mouhamadul Moustapha ak euh, Serigne Mokhtar Seck ak euh, alaaji Samba jaw ak mbooleem ñi nga xam ne sunuy mbokki taalibe lañ te ngeen ànd ak ñoom ñi ngi leen di dalal di ubbil kàddu gi kilifa mbooloo mi di imaam Serigne Afia Bousso al imaam mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi nii toog dalal leen waaye feggoo ak kilifay mbooloo mi nga xam ne ñoom la sëriñ bi di Cheikh Mouhamadul Muntaxa di liggéeyloo fii ci barab bi muy daaira muxaddamatul xidma nga xam ne ñoom lañu dénk lu aju ci wàllu jumaa ji ak li ci aju ak yi nga xam ne tamit ab jullit da koy soxla woo muy armeel yi ak armeel yi baq ya ci wàllu taxawaay ya ci aju ca diine ak yi ci aju ci wàllu entretien ak ay taxawaay euh, sëriñ Abdul Ahad Bousso mu sëriñ Abdul Moutalib mi ngi nii di secrétaire général bi dend ak sëriñ Abdul Ahad Bousso maam asta di président commission sociale waaye euh, mbooloo mi bi ñu ñëw tamit ñoom alxaaji Mulaay yëgaloon nañ ko monsieur le maire Abdoul Ahad mu yebal fii tamit ki nga xam ne conseiller la ci commune Touba ba noppi bokk ci yéen muy alxaaji Elimane Gaye moom it mu ngi ni toog teewal fi maire euh, di leen dalal ci dëkk bi moom it kon daaira Muxaddamatul Xidma mi ngi leen di dalal di leen tatagal di ànd ak yéen ci li ngeen di dox bu baax a baax ndax ñëw ngeen ci dëkk boo xam ne mooy dëkkub sëriñ bi di dëkk boo xam ne tamit kenn ku nekk xam na sëriñ Touba ni mu demee ak yonent bi sallallahu alayhi wa kon lu ñuy sawar lay ngir tatagal leen euh, dalal leen euh, ànd ak yéen liggéey bi te ñaanal leen ci ndam niñ ko doon leerale léegi léegi nii rek bi ngeen duggee ci studio maa ngi leen di wax ne sëriñ bi dafa niroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp ndax soo xoolee day daayira Muxaddamatul Xidma euh, sos nañ ko lu yàgg ñu bëri ci ñoom xëy na demuñu woon Arabie Saoudite waaye ku fa dem soo gisee jumtuwaay ya fa nekk muy matériel ya fa nekk di setal ak mbooloo ya nga xam ne tànn nañ leen ñu yor wàllu entretien ba moo xam Madina la wala Makka ak kuréel ba nga xam ne samp nañ ko ñu koy tuddee al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar loolu lépp suñ ko xoolee dafay dugg ci liggéeyu mu Muxaddamatul Xidma loola euh, lu lu lu yéeme la loo xam ne xëy na dafay mel ne sëriñ bi moom tegtal bi mu am rek ci jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay niroog moom ci lépp loolu tamit moo wàll ba law ci mbooleem sunu kilifa yi diine yi ci yi ci réew mi kon dal euh, sëriñ bi mi ngi leen di dalal bu baax kon su ko defee dañuy bokk jox ko kàddu yi mu yëkkati ay kàddu kàddu yi mbégte ak ay kàddu yi tatagal ak ay kàddu yi yéene euh, kon sëriñ bisimilah. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alambiya walmursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati wa sallam tam dëkk bi te ñëpp nekk ci gannaaw ak ci turu daayira Muqaddamatul Xidma bi nga xam ni moom la sëñ bi di liggéeyu jumaa ji di wax ne daje bi am na ci mbégte lool ren yi ci noonu lool ndax xam nañu ne cër bi nga xam ni suñu boroom tabaraka wa taala ak sayyidina Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam seet nañ ko seen Tuubaa ci diine yi nangu ngeen ko xam ngeen ko seet ngeen ko ko nu mu gën a mate loolu kon bi ñuy daata wax ñu ngi xam ne yëg nañ ko bu baax a baax baax yi fi jibit yépp firndeel na ko kon mu ngi leen sant ci loolu bu baax di sant ci mboolem seen yëngatu ni ñu ko waxee te lépp jëm ci lislaam muy loo xam ni man wax ne fardu kifaaya la muy li seen liggéey bi léegi ñun ñëpp la war kon bu ñu ci taxawee da nga ñu cee wóotu ñun ñëpp kon ñun ñëpp amal nañ leen cant amal nañ leen ngërëm amal nañ leen ñaan ndax foofu fa demutee waaye ñi nga xam ne dem nañ fa gis nañ. taxawaay yi nga xam ni seen taxawaay ba tax na ku fa jógee ku nekk da ndaw ci yéen di di tàll ni ci yéen itam di bëgg a dégg ci itam nopp jàmm bëgg a dégg ci itam tawfeex Khoudia di ko taxaw taxawaay boo xam ni bu ma sëkk la kon loolu suñu cant fu mu ñoom xamuñu ko fu ñu tàmbalee lañ mën a xam waaye xamuñu fu ñu tàmbalee te rawatina ñi nga xam ne ñoo ko seq ñëpp liggéey di ay doomu soxna yoo xam ni ku nekk ba ngay jug di ci tàbbi xam na am na loo war loo war a liggéeyal sa réew ci lislaam nga dem ba yëg ne mën ngaa féete foofu nga féetale fa sab liggéey kon kenn ku nekk ci yéen ñu la baral sunu nuyoo di la baral sunu ziyaara di la beral sunu ndokkee di la beral sunu cant te xam ne lu ñu xam la doonte xam nañ ko bari fi ñëwagul waaye léegi nag gën na noo leer léegi ni mbir mi nekk nekkul rek ci ay waye waye loxo yi waye waye waaye ci ay loxo yi doomi soxna la nekk yoo xam ne lañuy liggéey yàlla ñu jiital kon alhamdulilah rabbil alamin bi ñu xamee ne ko ci seen loxo la nekk donte xamoon nañ ko waaye xamuñu woon nag deme na ni lay kon loolu ñu ci dollee mbégte ci dollee rafet njort ci dollee sant yàlla sëñ mu nag lu bari ci mbir yi ci moom danga ko xamee ndax alhamdulilahi rabbil alamin ñaari at yi wala ñett bi ci nekk ñi muy yóbbu fii li ñu déparé fii ñu toog la ñu toog ñoom ñëpp gannaaw muñ bàyyi ko ci barab bi jox leen fii ay ndekki ànd ñu ministère bi ñu ngi ba dugg ci kaar yi ci bunt kër bi buñ dee itam fi leen di wàccee muy lu am solo loo xam ne yàggoon nañu mébét loolu am waaye ko alhamdu suur yàlla mu ko defe ci loxoom ak ndimbalam ak taxawaayam bu ak seenu jàppale nag ndax kenn mënul dara xam nañ ne bu ko defee am na ay jàppale da kon ñi ngi sant kon ci turam di leen sant yéen ñëpp kon ci suñu tur ak ci turam moom itam ndax moom dafa nekk kenn ci noonu koo xam ne euh, macha allah fi mu féete dafa bari di ñu seq dafa bari mu di kat feetu feetu ci wet gii goo xam ne ñun ñëpp la fa féeteel kon ñu di seeral yéen yéen itam suñu cant ci ñoom ni nga xam ne moo ngi doon seeral léegi seenu cant ci di wax ne kàddu yi moom du gudd di wax ne rek weesu rek wax ne yëg nañ yëg-yëg bii yëg nañ ko bu baax leen tax a jógit xam nañ ko bu baax dal ko itti gi itam xam nañ ko bu baax xam nañ ci it ne mbir mi ci loxo doom soxna lekk ba tane xel gën nañ ca dal bu baax ku ñu di ñaanal tawfiq ba fépp fu ko bëgg àggale parce que bi dëkk ci yéen ba bëgg lépp di yàlla yàlla ko yàlla dogal yàlla ci yàlla tawfiqal ñëpp dem bi di yàlla dépense bi di yàlla yëngatu bi di yàlla lépp di yàlla àddina génn ci ba set ndax lépp lu du euh, yàlla rek lépp lu yàlla ak neen kon lépp na yàlla lépp lépp lépp lépp yàlla na yàlla jërëjëf ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu jox kàddu gi. Mm-hmm. sëñ Abdou Lahad xanaa mu sànni kon waaw. jërëjëf